yàlla choisir ko. Hmm. li ñu ci mën a jàngale. Hmm. ci mission bu toll nii nga xam ne yàllaa ko nammal boppam. dëgg la bëgg programme màggal gi am. Hmm. mu tànn nag Serigne Touba. ngir mu doon acteur bi nga xam ne mooy ànd ak tubaab bi di mbëkkantee ko jug. ba sabab lu waral bisu bis bi safar am ci àddina. foofu laa bëggoon nga ñëw. jërëjëf Serigne Saliou ci setantal bu am solo boobu ak laaj bu am solo boobu ndax xam nga ni lii ñu jot a introduire. nga indi ko ci màggal nga xamné ci ësalier la laata benn mbindeef di judd yàlla programmer ci lum bëggal seigne touba programmer ci lum bëggal yonent bi programmer ci lum bëggal xeet wi ba seigne touba wax ko loolu mu war ko amal kamuy choisir ngir mu jouer film boobu. wallaahi kooku du doon n'importe qui. déedéet kon kooku faw mu am diggante ak yàlla. diggante ak yàlla. loolu nag daa mel ne nag maa laaj kon fi mu ne diggante Serigne Touba ak yàlla. ak yàlla ndax ñoom ñaar comme déeyoo nañu. waaw ba am lu ñu ci ësël. ba mm. Serigne Touba war a wàcc jouer ko. Mm. kon amoon amoon nañ diggante. kon diggante bi du fii. kon diggante bi du fii. Mm-hmm. léegi diggante boobu nag suñ ci waree waxtaan tey. Mm-hmm. Mm-hmm. te Serigne Touba xaw a dugg ni ci wet yi tuuti mhm. ndax xam nga ni yàlla comme nar a joué mission wax nga ko mhm. ni mu tànn yonent yi mhm. looloo tax yonent bi tudd al Moustapha kun tànn ki kun tànn ki fi ne Moustapha li muy dox bokkul ak mujtaba déedéet bokkunu bokkul ak muntaxa loolu bokkul waaye waaye bokkul ba léegi ak rasulu ak rasulu bokkut ak nabiyu bokkul ak nabiyu déedéet kon Moustapha ci li muy dox mhm. bokkul ak nabi yu ci li muy dox looloo tax yonent bi ñu tànn ko mhm. gis nga même tànn yonent bi mhm. ngir jouer la ko mission ci kaw suuf mu doon ah, rahmatan lil alamin doon kaafatan lin naasi keneen kum tànn da lay beral ay jikko ay jikko bi mu tànnee Mariama bëgg a feeñal ci moom leeruk Isa Isa war a judd ci jamono am ndey te du am bàyyi. Mhm. yàlla bëgg cee wane kéemaanam gu rëy ci àddina. Mhm. Isaa war a toog ci berceau. Mhm. di wax wax joo xam ni waxambaane bi gën a mag mënu koo wax. kàllaama yu leer. loolu xam nga day mission bu rëy. mission bu ngan yàlla ne bi ji ma bëgg a joué loolu dama ko tànn. Ah, dama ko tànn. lu mu waxoon ci yonent bi Moustapha. waxoon ci Adama inna allah astafa. da koo tànn Adama. yaa ngi dégg ak yeneen yoon. téem ci tudd war na ala Ibrahima. yàlla noonu ma tànne ñooñu noonu laa tànne Mariama ngir mission bi ma ko bëgg a maa ngi ci yàlla ak dogal bu mu dogal. te mhm. atteegu ko. Mhm. ki mu koy joué loo. ki mu koy joué loo moo tax mu ne ko yaa Mariamu. bala ngaa ñëw daal kon ci mission bi Serigne Touba nga ñëw ci ki def mission bi. ki def mission bi muy Serigne Touba. mooy yaa Mariamu. Mhm. ñu ne waa mu ne inna allaha. astafiki yàlla da tànn. bi mu la tànnee ba pare. watahare ki watahare ki mooy da laa sellal laabal la. kon gis nga ba léegi programme yàlla. da laa waajal kon <laughs> ndax yàlla mooy choisir acteur bi. waaye yemu ci de mhm. wësta feeki mu tànnat la mhm. ala nisaay laalamiin yàlla moo xool sa julli sa jigéeni jamono yëpp mhm. jigéeni addina yëpp mu seppi la yow Mariama tànn la inna allaha yubashiru ki doore ñëw waaw maam bi mu la naree suyee loo rôle bu toll ni jaarale ci yow ku am ndey te du am baay ah. te mu war a doon ayatan minna ayatan minna boobaa nag dalay waajal dalay waajal yow Mariama kon gis nga ni yàlla ku muy tànn dalay waajal la alxuraan la Sëñ Tuubaa nag bi a tan ko wadjal ko fii nuy waxtane seigne Touba nak waxtu yi day wet go xamni nak mm-hmm. ah wetam nag diggam ak yalla kon seigne Touba da bari wet seigne Touba dafa bari wet saliw euh lolo tax sax mouride yi tous les mourides mm-hmm. mm-hmm. ne parle pas le même langage xana xam mo na fe tek juroomi juróomi bo xamni ku nek ak seigne Touba te ñoy bokkum seigne Touba te ñoy bokkum seigne Touba leg leg ñu waxtaan ba tegeentey dënd ci seigne Touba te kenn ku nek ka ngay wax seigne Touba te bokk sa borom ka ngay wax te waye yeena bokk ka ngeen di wax bokkoo leen ki ngeen di wax. te yéen bokk ngeen di wax te yéen bokk ki ngeen di wax. loolu loolu loolu moo ko waral. tey jii. Mm-hmm. ñëwaguñu ci Cheikh Ahmad Bamba. Mm-hmm. maa waxtu wii Cheikh Ahmadou Bamba ak wet la ci moom ak wet la ci moom am na wetam gu ñuy tuddee Cheikh Ahmadou Bamba mooy Ahmadou Bamba moomu moo jàll Mbàkke Kajoor wallahi dem Daaru mhm. eh, jóge fa mhm. jàll Sénégal Touba. Mhm. ainsi de suite. naan ah, Ibn moomu. Mhm. mooy ki nga xam ne moo nekkoon euh, moom lañ denc fii. Mhm. ci ci ci Touba. ci Touba nga xam day am bisu juddu. am bisu faatu am ku ko jur. am ñum jur nga xamni ne Ahmadou bama mom mo nekkon biir kër mam aswala mamam wallahi di bind si ndiidi di bind si ndiidi ko ah, koy ko koy ah, Ahmadou naan wakkun nasiiri yi wakkun nasiiri anisi xiinamaa dafanu xiinamaa dafanu gis ni fasirtu xiinan sama yalla sama yalla wallahi ah, Ahmadou Bamba moomu mo mhm. don wax yalla bis bu may fatu mhm. sama rugi bu mhm. takaliko sama jëm ji wallahi yalla nang ko def na wef bu metti na nga ko yafal de wallahi ndaysan nang ma fa dimbali nang ma fa dimbali sama sama yaram yi bu ko ci suuf ci nga la yalla na nga wattu yaram bi mhm. ba bu mu yàqu dëgg la ndeysaan mel ni lënd mu bàmmeel sax day ñaan yàlla mu musal ko ci waaw day da yàlla nag ma ña nag ma musal li waalidayya mhm. wax fir li jamia mhm. wa jumlati siqaari yaa samia yaa samia wax fas li yàlla gis ma waaw xaysu ruuhu faaraxani fil xabri fil xabri laa tubli yéen hu dëhëra yàlla wallahi kon Ahmadou Bamba wax loolu wax fas li yàlla gis ma xaysu ah, ruuhu faaraxani sama yaram bi ah. waaye fil xabri nag ci biir bàmmeel ah, laa tubliyannahu daxara ah. bu ma fa bu ma fa nattu bu ma fa nattu mbugalum bàmmeel ak lëna lëna yaa yooyu gaa yi nettali bu fekk Ahmadou Bamba moom moom wóoruta yaakaar ci bàmmeel kooku bokk ak yow sëñ tubaab ma doon wax kullu muridin bii ah. yalusu yasxadu ndax defe naa ko naan musal ma ci bàmmeel <laughs> talagoo naan kullu muridin bii yalusu yow comme da ngay ñaan ñu muccal la yow mën a góob muccal kenn mën a góob muccal kenn ba naan ko aju ci man mucc. waaw waaw am na wetam gu ñuy tuddee Ahmadou Bamba am na murit yu ko fa gëm nag. waaw gëm ko baax. lu am solo. gëm koo xam ni boo jëloon dundam gi jomuk hmm. sëriñ bi. jom ja jomuk Ahmadou Bamba. ngor ja ngor gi. ful la ja sëñ Tuubaa mësta signé lu mu bañoon. mësta nangu lu mu bañoon. déedéet mësta mësta mësta bëgg it lu nangu woon. barke sëriñ Bamba. Hmm. li tukki bi yàgg yàgg yàgg. Hmm. jom ji mu tàmbalee jom mm-hmm. jooju la la mujjee ngoro gi waaye mësta ragal mësta xof sëriñ bi mësta tiit fit wa fit mm-hmm. waaye jàmbaar gi nag xam nga tukkib sëñ Tuubaa bi képp ku amoon baatinu mën koo def mm-hmm. waaye sawarte gi boo ñëwee mën ngaa tooy ba faatu wallaahi ndax dégg jamaa yomba dégg sar saara wiir wiir yàgg <laughs> dégg wallaahi xam nga loolu lu jagat jagat ja kon Ahmadou Bamba ngoog koo koy Ahmadou Bamba muy ku kawe nag koo xam ne ku ko fa gëm sag murit wér sag murit wér waaye tey nag murit bi nga xam ni ci Ahmadou Bamba la toll mhm. tey sëñ Saliou mën na noo xaar danañ waxtaan ak moom sa waaye du tey du tey waaw Ahmadou Bamba lu bari lañ ci mën a a jàng ci mën a a mokkal mhm. ci mën a taalif mën a mën a a mhm. lépp lu nit di def mu man ca Ahmadou Bamba def na ko kon wet lañ ci mën a jàng bari na waaye du tey déedéet xaar leen nu xan nañ ñu xaar xanaa kon tey dañuy dugg ci Abdoulaye déedéet wetu Abdoulaye wax tudd ah. nga wet gu fort waa wet gu rëy ngoog waaye déterminé wul li tax Sëñ Tuubaa mën a jouer mission màggal déedéet déedéet du doon Abdoulaye rek mooy tax Mm-hmm. yàlla tànn la ngir ngay doon borom 18 safar. parce que wetu Abdoulaye boo ko jëloon. Mm-hmm. wet gu mën a jàngale la. wallaay ndeysaan ndax da nga xam ne Sëriñ Tuubaa jaamu jaral. Ah. mosoo gis jaam bu jaamu yàlla jaral lool. déedéet xibaadaatuna faaxat. xibaadaat xayruna. wa billaahi min iblisa. max si kiri mos nga xam ne jaamu na yàlla ba yëg ni ak jaamu yàlla am kawe na jaamu yàlla kudul moom. Mm-hmm. ndax lam cey def ci yéene kenn mënu ko. lam cey def ci ngor ak teewlu kenn mënu ko. mës julli waxtu te jàppalu ko njàpp mu yees. loolu de benn yoon la mos a tiim. Hmm. te moom amee ndox yeesal na ko. loolu rek kenn mosu ko def seetal ma loolu ci ak jaamu yàlla. kooku moo naan zëhëre lii kaw ni abdallahi. wallaahi xillan lahu. Ah. wa xibban li wajhillahi. tayaxanu ah. hmm. hmm. li rasulillahi. nga xam ne ci abdullahi boo ko jëloon. jaamu yàlla ak Serigne Touba. gëmam yàlla wóolum yàlla. waaye Serigne Touba ni mu doon teewloo jaamu yàlla nga wax na ni bu daan xel kafe nii sax bu ne allahu akbar day bàyyi ñaari baaraam yi rek moro dëgg la bu xasee bu jublu yoonu jàkka ja kenn mënutu ko dëpp loolu ko musaaka seen musaaka di waxee waaye Serigne Saliou ki jekki ba nga zëhrali kaw ni abdallah wallaay ndeysaan waaw feeñ na ci man feeñ na jolli mhm. doon gi ma doon jaamub yàlla mhm. xillan lahu di soppeem nag mhm. di xaritam waaye waxit ban li wajhillaahi wallaahi billaahi ahbabtu rasulallah xam naa ci yàlla ne ku bëgg yéen alayhi xayru salawaatillaahi kooku mooy Ahmadou Bamba kon Abdoulaye moomu mhm. buñ ci ñëwoon mën cee jàngale lu bari kooku Abdou sëñ Tuubaa Abdou nga xamante ban jaamu yàlla ban taxawaay la am waaye murit bi ko gëmee foofu mhm. gëm na ku baax ku rëy gëm na koo xam ni ci wetu Abdoulaye mhm. mën nga cee defar sa àddina ak sa àllaaxira waaye murit boobu wax ma boobu dañuy xaar kooku danañ ko waxtaane waaye du tey danañ ko waxtaane nag waaye du waaye wet gi suye màggal gi ah, yàlla suwaa siir ko du wetu abdoulaye li tax yàlla tànn ko du wetu abdoulaye rek xanaa xaddimu rasul la bokkul ak xaddimu rasul ak li xaddimu rasul for for xaddimu rasul dafa for mbindeef yëpp daje nañ sëñ Tuubaa rek ko am kenn musu ko am fi ne boo tuddee xaddimu rasul mm. kenn du la ne koy wax سكرته اسقسني اه بخدمه ما هسني ساقمه في الحلني له هو فك ولا كون دنجو خوجا لين والله دنجو خوجا مرك الحليل باخ الخدي جهلني اصنع الخدي لمن له فضل يد فضل يد داني وسانني في الخدمه في الخدمه خدم رسول فوق خدم رسول دي لو ري سيني سانو نينا باسكو خدم رسول دافو مكو سما بوك ديدت نينا يالا ما ديف خدم رسول Mm-hmm. ñaareel ba mooy tuddewuma ko sama bopp mm-hmm. yàlla moo ma ko tudde mm-hmm. sàmmayta nii xatxan bi xam dikkal xaddi yaa man yaquudu lii ah, bu saaraati taddu yow mi nga xam ni da nga maa defal da nga maa def may may may sa mbig mu sax di mbig mu bi mbig mu sax di ma bëggee yow yaa ma tànn ci biir mbindeef yi nee na def ma xaddiima rasul allahu qad yàllaa ma ko def kon day mhm, mhm. wet guri ndax moy wet gi nga xamni mhm. ci la leggey la yent bi leggey bu rëy bi bëgg ko bëgg ko kenn musta bëgg ko bëgg ko kenn musta bëgg ci la ko tagge tag yu rëy wallahi tag yo xamni neena dem na bani tag yo yi yalla dafa am mox yu sa yum dencaloon yonent bi yo xamni yent bi jotu koo feeñal nee ma ñew mu xëpp mo mox yi say ne ma yaa koy feeñalal yonent bi moo tax mu naan min mox muntaqa sallallahu alayhi ba ba bayit ba jeex kon taxaw man qada wallahi kon qadim rasul day wet guri gu rëy ndax qadim rasul ci la jaar jaare ci géej gi wallaahi dégg nga mu naan xallamani rahmaanu fi safina bi anna nii xaddiimu xaddiimu zil madina xanaa ca laa waxoon man sanna annahu yakunu abada yurdihi billati ka xidmati bada wallaahi ndeysaan nafaytu sannahu bi anniyal xaddiim bi maa wanaa xan mislihi kullu xaddiim wallaahi kullu xaddiim ci xaddiim rasul ci xaddiim rasul laa ko liggéeyale liggéey bopp kenn mësu ko koo liggéeyal te ku njort ne rek da nga ko liggéeyale ci liggéey bu ni mel iblis la war de moo tax dajji naa sa njortu la sànni hmm. kenn dootu ko liggéey liggéey bu ni mel kon hmm. xadim rasul for xadim rasul day lu rëy murit bi gëmee sëñ Tuubaa nag ci xadim rasul waaw ba téye for na lool hmm. ah, rëy na waaye diggante sëñ Tuubaa ak yàlla ba tax yàlla tànn ko di ko joué loo mission bu toll ni 18 safar mbindee fi am ci cër yonent bi am ci cër sëriñ Tuubaa am ci cër du wet googu kon murit boobu tey dañuy xaar ñu beral ko jotaay boppam ndax wet googu ba mu koy seq yàlla xaadimu rasul amagut déedéet li xaadimu rasul di foor foor ndax boobu yi mhm. boobu yi yëpp xewagul xanaa kon day Sëñ Tuubaa waliyullah ak wet la ci moom. ah waaw wali wali lu foor la. wali wali mooy Sëñ Tuubaa mi nga xam ni waliyu yàlla. yàllaa ko tànn boole ko ci wilaayatu. waaw mu am jox ko wilaayatu. ci awliyaawullaahi bokk ci xarit yàlla yi te waliyu daa foor alaa inna awliyaallahi laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun allazina amanu wa kaanu yattaquun. Mm-hmm. lahumul busra fi lxayaati dunya wa fi laaxirati. Mm-hmm. Mm-hmm. laa tabdila li kalimatillah. daalika huwa alfawzul aziim kon waliyu foor na. waaye nag wet gii nu bëgg a waxtaani Sëñ Tuubaa bokkul ak wetu wilaayatu wilaayatu du ñaar ndax Sëñ Tuubaa yi bul fàtte ni waliyu doon na ko maqaama la ci moom mhm. waaye feeñal na it maqaama mu sut mooma mhm. moo xam ne mënoo koo tudde wàll yu doonte wilaayati jëmul fenn mhm. ndax xam nga ne kinaan ni ngeen xam ne kat pàkk bu ma julli bu ne bësal ma wala ma julli fa ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca sansé pàkk boobee yàlla ubbi na ko muy buntu bu dem ba aras lu ko tax a jóg mu ni yéegal fa wàllu yoom bi hmm. wa kullu buqaatin salaytu fiiha hmm. wa hiya baabun min abwaabi sama yasxadu fiihi awliya allah hmm. pàkk bu ma julli rek mu doon usine bi defar wàllu yu kooku maqaama mam taxaw may wax loolu ëpp na maqaama wàllu yu kese wallaay ndeysaan ah, moo tax ki naan ah, yasaralil a la daal limbar wali man qaad lii maa qaaba xan kulli wali bi ma nekkee limbar wali la ma fa yàlla jox yëf la yooy waxuma wàlli yu mosu koo xam de mosu koo am de mosu hmm. koo xam dëgg la ab wàlli yu rek mësta xam dara ca yooya ba di ko am dëgg la waxut maa xaasa de waaye maa xaaba hmm. képp ku taxaw ci maqam wàlli yu rek hmm. loolu ëmp na la ka nga xam ne nag am na loo xam ne ku doon maqam wàlli yu mu ëmp la fam taxaw di wax loolu xam nga ëpp na wilaayatu moo tax wàlli yu foor na waaye du bokkul ak wet gi ñuy wax waaye bokkut ak wet gi nu bëgg a ñëwee ki sëriñ yow wet gi ma laaj ki gëm sëriñ bi en tant que wàlli yu li muy for for for waaye man ma ni wàlli yu mënta jouer film bi di magal ki wa léegi nak kon ci gàttal comme seigne touba da bari wet wet yëpp bëgg nañ ci ñëw abdullah Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul waliyullaahi ngi dégg borom Touba. wa léegi dal ci gàttal wet gu ne sa xeyna dañ ñu ci jotta benen wet gu gëna fort di waaw borom Touba wa loolu mir la Touba rek lenen la Touba la beneen mbiram gox waaw borom xam nga Touba day alal yàlla alal yàlla ndax yent bi neena Touba shajaratun fil janna masirati ma atihamin wallaahi siyaa bi al jannati taxruju min akmalha garab ga la gu nekk àjjana moom Touba kon Touba du domaine du mbindeef domaine yàlla mhm. boo demee ci sotti Ibrahima dégg nga yàlla bi mu koy wax tuuti ukulahaa kulla xiinin bi isni rabbiha uh-huh. nga xam ne alam tara kayfa daraballaahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa faruha fi samain tuuti ukulahaa kulla xiinin bi isni rabbiha wa yadribullahu lamsaal xam nga yàlla junj na fa garabu Touba junj na ko fa léegi lu tax àddina xew ba ñuy woowee sëñ Touba borom Touba mm-hmm. loolu gëneen wet la nga xam ne borom Touba bind lamtan huni uh-huh. muqaddamatul mawti wa xadra faxtu bil baqaa'i sawti bil baqaa'i sawti te Ahmadou Bamba ngi doon wax wàcc xaal waa mm-hmm. wam fas liyal gis maay surruhu faaraxani fil xabri mm-hmm. laa tubliyanhu dahra yàlla wa kun nazirihi mais contradictoire <laughs> kaay ma wax la pourquoi tous les mourides ne parlent pas le même langage mm-hmm. yow da gëm sëñ Tuubaa kii gëm ko kee gëm ko kële gëm ko mais kii day gëm Ahmadou Bamba sëñ mm-hmm. Tuubaa la gëm mais Ahmadou Bamba la gëm mm-hmm. kii nag day gëm Abdullahi sëñ Tuubaa miy jaamu bi yàlla kii gëm sëñ Tuubaa miy Xaadimu Rasuul kële ma ca sëñ Tuubaa yoo xam ni. mooy mooy waliyullah. waliyullah. kee nag day gëm Ahmadu. wallaahi sëñ Tuubaa mi yonent bi. wallaahi <laughs> tooge maqaamam. waaw bu bokkunu. ñoom ñëpp kenn bokku ci. kee day borom Tuubaa. Hmm. boo waxee mu ne la barke borom Tuubaa. wallaahi moom ma nga ca borom Tuubaa gi taxaw. bokkunu bokkul ak ki naa Ahmadu borom jaam. déedéet nga xam ne moom foofu la taxaw. daam waaw léegi nag bokkul ak ki gëm daam. déedéet yooyu yëpp nag tey damaa bëgg ñoo ñu xaar ñu. Hmm. xam nga tey fu mu bëgg ñu dem. Ah. Sëriñ Tuubaa jaarul laahi